ah dama ni bisimila ku doon laajte faali ngoye ngi nii seen produit naturel xarañ 100 pour cent bio yegg si na jaaxle jeex na de produit la bu nga xamante ni ñu ngi koy defaree a base de plante teg si dama ni la amul benn effet secondaire xarañ rek ci yokku kattan ak cawarte ey xarañ benn jeeg mereetu fi jëkkëram kon yow mi am jafe-jafe sa néegu sëy wooteel kaaw ci numéro yi 70 669 69 29 walla boog 77 317 03 41 ak xarañ ñëpp ay xarañ. am mbégte ak kontaante comme ni ñu koy def chaque fois lépp li nga xam ne ni moo doon ak jaate ñu indi ko alors tey gis ngeen ñoo ngi toog kii di Mame Ndiaye Savon bu nekk troisième édition bi nga xam ne nii à chaque fois Kazu Rajab bu jotee moom da koy woote fii te moom la ñaanoon sëñ Fallou Mbacké alors maam lan ngay tëjee tey sa mbooloo mi tey nga woote ñu wuy la daaw gisoon nañ ñu meloon waaye rey waaye ren gi dafa jégg dayoo. barke Serigne fàllu Mbacke rek sant yàlla bu baax a baax julli ci yonent bi sant sama ñaari waajur teg ci Alaaji Fallou Mbacke bis bi ala ndaw mi na réussir na kontaan naa ndax daaw ni mu meloon bu ren bi kenn xaju fi te leer na leen di sant ñëpp di leen gërëm di sant sit internet yi waaye ren Serigne Fallou dama rëq daf ma rëq ren ndax moom du bàyyi waayam. sëñ Fallou kenn du ànd ak moom mu di la seetaan waaye ki wéeru moo mat wéeru waaye allah ji Fallou Mbacké. Mm-hmm. en sa sa diggante ak sëñ Fallou lan la. bëgg sëñ Fallou rek doyloo sëñ Fallou nag di tiitaroo sëñ Fallou di yaay sëriñ Fallou sëñ Fallou mayati na ma ndam dama daan wax yaay sëriñ Fallou amati na ndam dama naan yaay sëriñ Fallou Mbacké amati na kii nu ñu koy waxee médaille. médaille laa am fi mu ne ndam yi dafa bëri médaille laa am barki Serigne Fallou Mbacke Serigne Fallou nag li ma ànd ak yow tiitu ma ko ragalu ma ko jaaxlewu ma Fallou bu sa yaama sagal man kenn nawlawu ma woon kenn bëggu woon territoire laa nekkoon di tëdd ci carton yi leer na Sénégal gépp gasoil yi jàpp ma lakk ma ba ma ñuul damaa meloon ni bun na car sëñ Fallou raxas ma ba ma set sang ma ba ma set solol ma mbubb yu rafet teg ma ci avion yu borom zipp yi waaxu ma yuuxu fi mu ne dama am xaalis sant yàlla. sant yàlla sant sëñ Fallou dama sonnoon territoire laa nekkoon sonn. ma sonn jaay naa ndox jaay naa lu ne yen ñëpp bu leen découragé bu dee man mi la yàlla teral barke Alaaji Fallou Mbacke yéen ñëpp la yàlla teral am bi laa naa def naa lu ne barke Serigne Fallou Mbacke déggal lii. alors fu mu toll nii nag mu teral la teral la ñi nga xam ne ti mooy say morom tey mën nañu wax ne bis bi bés réconciliation la nga gis ñu xam ne ñu bëri euh, Mame Ndiaye sama bokkoon ñoom liggéey wala xamante ak ñoom wala moo ngi nekk ak ñoom si tey ji ñëpp a ñëw dama jaaxle tiit barki Serigne Touba Mbacke Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar tey Sénégal gépp ma wuyu si billaahi wallaahi wal kitaabi ku ñëwul yëguma ko ndax tey ñi ma gis te ku ñëw rek dangaa indi sa doole ndax bisub sëñ Fallou bi lu ci waay def bu nekk dala yàlla dala koy fulal sëñ Fallou kenn du ko may benn te du la may fukk bañ na ko daane juróom-ñaari sëñ Fallou danga koy may benn mu may la mu dolli la juróom-benn mu nekk juróom-ñaar. waxaa tey lii de day signifié rek ëllëg bis ngi tey dootuñu dégg Mame Ndiaye Savon si benn histoire wala benn problème parce que fu mu toll nag ñëpp ko jox bopp. tey laa gën a mën a histoire suñ ma bàyyee tooñ. tax man ku ma yàpp bugguma ku ma manque barki sëriñ Fallou ndax gaynde laa bisu sëñ Fallou bi kafuma ci réew ma ci ndax sëñ Fallou rek laa bëgg waaye kenn du ma yab. mais sa jotul tamit maam ba mu fekkee dañ la tooñ sax wala dañ la yab sax nga bàyyi suuf nga nga baale. man xulooy sama gàllaaj nga naan ma bàyyil ci suuf kii wér na xulloo sama gàllaaj nga naan ma bàyyil ci suuf yéen day leen wax nag waxu nit yéen journaliste man xullooy sama gàllaaj. kon doo bàyyi xulloo yàlla tere. alors maam bu temps bu ñu déggee sur mër nga toog yaa ngi wax naan danga doo bàyyi xuloo des fois ñu gis sa si say say say say euh, TikTok say direct ngaan góor day dëggër ñu bëri jàpp ne maam kat dafa am ki nga xam ne nii moom lay gaarawaal muy jëkkëram. jëkkër ja oh, sama jëkkër laay gaarawaal kon de ma manqué fay biram penda waagaan dugg-dugg waagaan xandis waagaan waagaan ko ma sàññaan mu bëgg ma loolu tekk ma ci farataag yàlla ak sunna su Muhammad ma jural ko doomam yi am bisu Alaaji Fàllu Mbàkke di gaaruwaale sama jëkkër kon ma manqué moo ma jox warugar teral ma xewal ma xew mu rey teral ma ay waay tey ngeen a bàyyi sama sëy bii ngeen yàlla yàlla ni euh, euh, jinjeeru takk man tasuma tas liwu ma bam naa ne tas bi yàkkamti ngeen ko ndax chaque jour ngeen wax ko waaye man waaju ma tas waaju ma tas barke Alaaji Fàllu Mbàkke man buñ ma fasee dew ma ñu ñàkk maa fase dew ma ñu bulee ma dew ma ñu buux ma dew ma xanaa maa mën a sëy réglé leen maa ñàkk jox nga takk ñeenti jabar ma toog di muñ xanaa maa mën a sëy sëñ Fàllu rek laa yaakaar sama doom ji ma am ko di sëñ Fàllu di tas du ngeen ma ñaana jàmm tey wax waxu nit daara ma yi nañuy wax waxu nit daar malaan la daar ma dama tiit ci wax ji dafa jot nga leeral parce que ñu bëri jàppoon fu mu toll nii maam Ndiaye kat fu mu toll nii tas na ñu bëri loolu man tasuma te bu ma tasoo ni damaa pànk damay taxaw ci site internet yi ne leen tas ndax daw ma dara ndax yàlla ba muy tudd sey daa bind tas te tasit du fi mbañ ndax si réew mii tas du fi mbañ waaye nag tubaarkàlla bis buñ ma ma buñ ma mayee baat man ma taxaw man maa ko inte yéen yéen ñi da ngeen maa dàq wax da ngeen maa jël su ma nee salaamaaleykum taal sama directive ñëpp may déglu dama naan leen salaamaaleykum bañ na maaleykum salaam ma ne leen maam Njaay tas na te bu boobaa wax du am bal du tàq fetal du jóg ndax ba ma lekkee warugal damaa natt ci kaw doom. kon maa amul benn problème ak ak jëkkëram. aw ma ak sama jëkkër benn problème dadi man maa sonn ci wax jeeg jaabante beeg dama ko ñëw xam nga lan mooy jaabante beeg dama ko ñëw ak leeral réew mi bañ may maye warugar bi kenn nanguwu ko. internet bi nanguwul sama warugar ñu takk ma ci farataag yàlla ak sunna su Muhammad tey internet bi taxaw ne ma damay tas bi may sëy dama leen a tàggu bañ may tëggal baara mbay dama leen a tàggu ba may baas di sol robe mariage dama leen a tàggu kon tey ngeen a bàyyi sama sëy bi ngeen ni yàlla ni takk euh, kiiwu ji jinjeer journaliste yi maa ngi leen di remercier yéen laa njëkk a remercier def ngeen lu rafet kontaan naa ci yéen seen liggéey rafet na di sant ñi fi ñëw ñëpp di sant daa mi sama waa ji maa moom dafa yàgg barke Serigne Touba gëj na ñoo déggante waaye dama ne lu yàgg dëgg la nit booy ànd ak moom da ngay ànd ak moom ci ngor ak personnalité ndax tey ànd bi bu dul woon ngor ak personnalité du ma fekk si nanu bàyyi ànd bu ñaaw di sant allah di sal mbay mi sama waaji ji di sant ñëpp ñi fi daje ndax su ma tuddee tur dinaa juum de ndax ñi fi ñëw daa bari maa ngi sant ñëpp di sant Alaaji Fàllu Mbàkke Fàllu aw bu sa jëx réew ma ren danga maa xët bu subaa damaa ren danga maa xët bu déwénee damaa bëgg nga bule ma na ma bule damaa mës cof daal may def nii defaat ma ni defaat mi ren mu ka mu xët ma déwén na kaj na kaj nanu séentu fu ne xaar ma séntu fu ne. jëlal ma sama kii mu wax lu baax. waaw <laughs> ah, maa ngi nuyu ñëpp ah, di ziar di delloo ñëpp njukkal di sant sama jigéenu bopp bi nga xam ni dañoo yàgg te lu yàgg dëgg la te soppeeku woo bewoo soppeeku woo bewoo te soppeeku gisuma ko sa gisuma ko dëgg nag ah, duñu ñu lu bari yaa ngi toog fi nga toog. maa ngi fi ma toog mais li ci xef yi li ci xol yee gën nga bari jom bari fula bari fayda man damaa bëgg nit koy def lu baax ndax euh, baadoolo du gërëm kuy ñaan du gërëm ku soxo du gërëm te reewoo soppeeku woo boo reewee sax sa reew na wonoo ma ko te yow xam nga ne man man man mii toog maa la gën a reew kuy reew ku ne man lay jàppale du dagg mais li ma xam ci yow rek dama la koy seedeel non ba tey sax du du ma ko yàq du ñaaw day neex dama joxe exemple rek xam nga man réew na góor gisuma ko ndax manu loo ma ko bew boobu ñuy wax gisuma ko ndax manu loo ma ko mooy la nga wax xamante ne ñu dem bu la neexoon bew sëriñ boo koy tiitaroo danga nga koy wane di ko jëfee sëñ Babacar mooy sama sëriñ dëgg la ku nekk ku sañoon bu gàmm jotee di nga di euh, tànt def tànt bu mel nii ngir sa sëriñ waaye am na ñoo xam ne am nañ ko li nga yor yor nañ ko mën nañ ko mais seen sëriñ jaralul leen ko nag sa sëriñ dala koo jaral moo tax nga di ko def du dëgg bu la ko jarul woon doo ko def sëñ Mansour Sy nee na ku bëgg dara da ngay def ca dara ja dara sëñ Mansour ko borom daara ji nee na ku bëgg dara da def ca dara ja dara dara ja jaral la dara sëñ Fallou jaral na dara nga def ca dara def nga ko daaw def ko daawati jéeg def ko di nga ko def di ko def di ko def te da ngay yokk ndax da nga ko def mu jig la boo ko deful woon jugu la amaana ban doo ko def li nga bëgg nag yaa ko xam yaa na la ko yàlla defal te yàlla bàyyi la ak Zane mii ndax olof Ndiaye nee na lu dagg morom ma fekk na la yàlla bàyyi ak Zane Mbaye mii ngeen ànd seen ànd te ñuy jël jën yi di jàmb ci soow nañ ko bàyyi ñuy jël jën yi di jàmb ci soow bàyyi leen ko dëgg la réew mi fi xaj dudul mm-hmm. jàmm jàmm ko gën maa ngi lay maa ngi ñibbi kontaan rek man moom kontaan rek man moom sama waa ji ndeysaan aw ma lu may wax dama kontaan rek daa ndax li ma naan ki tax ngay ki tax ngay tax te mosul taxaw ne yaa tax may tax boo goree rek ne ko yaa tax may tax te ma déggee saal mbay ci réew mi à cause da moom te ku ragal du gërëm ku soxor du gërëm te àdduna kaset la das koy arrière àdduna kaset la bu nu xool tey nan nuy xool démb ba ma mënulee dara kenn xamuma kenn mun kenn mënu maa ne Zale Mbaye tey jii kaay kaay liggéeyal ma ca la ma jëloon teg ma ci wetam bëgg ma lool lu mu nekk maa ngi ci bañu ma sama diggante moom bañu ma ci dara bañu ma dégg dara lu lu ma waay wax bëgg naa ndax maam Ndiaye ndax na kaay daf maa def loo xam ne tey jii ndey defalu ma ko bàyyi defalu ma ko mag defalu ma ko te ku ragal du gërëm man man loo may gis ni maa ngi moo ma yem danoo yem ko damaa naqari deret maa ngi moo ma yem dañoo tàng waaye dafa nekk nit ki nga xam ne dafa sincère ci nitam dafa mën nitam mhm. dafa nekk nit ki nga xam ne xolam moo tax li mu am yëpp mu am ko te daa fii ku ne sa xol mooy sa wërsëg te xol ku ci sa xol mooy sa gàllaaj mhm. maam amagul lii li man maam bii mooy quatrième édition man bii mooy troisième édition may làng ak maam fii ñuy Kazu Rajab barka allah ji fàllu te bu ko neexoon nag mu fuuy mbaa mu beew mbaa mu réew bu ko neexoon mu yëg boppam ah dem changé ay xarit ay xaritu tayam waaye nekk dafa nekk ni nga xam ne dem ba tey maa ngi fi ndax jaral na ma ko lu ne xew na fi sama diggante ak moom mais daf maa bëgg danoo bëggante man ak moom na ci xef yi na ci xol bee ko gën barki démb la yëkkati million may ma lu ci waay mën naa def yaa ko moom. lu ci waay ma alors maam gis nga kàddu yi nga xam ne Baye Zale ñëpp ci alors euh, gis nañ temps yi di problème ak Tigre Lorrain est-ce que yaa ngi si dox jàmm pour ñoom ñaar ñu jubóo. Kazu Rajab bi rek a ñu ñor jamono oh, ji man de barke Alaaji Faalu Kazu Rajab barke Alaaji Faalu ñu ci Kazu Rajab laaj da nga may laaj maam Ndiaye ñaata mën a la riij ak nag yi ñaata mën a la pat ak nag yi nag te maam li ma gën a neex ci nagam yi nagam yi xool xam nga baax ma nag 6 mois la 6 mois la 6 mois la nag bu ne 6 mois la ay oignon oignon yoo xam ne moo tax dañuy gaaw a ñor loolu daal loo nga may laaj. loolu la nga ñuy laaj tey ñëwaat